ñu ngi leen di ndokkeel leen jaajëfal ci topp ngeen ñu topp te ñaan suñu borom subhanahu wa ñu defoon yiw àdduna ko alaxira ala kulli haalin di sàkku itam ngeen dool ñu ñaan seen jotaayu asraar ki leen koy defal di seen mbokk sëriñ Mamour la Firdawsi asraar tey ñu ñëw ak yéen ci jotaay bu am solo boo xam ne dañ ci fas yéene waxtaane wala boog joxe benn sirru latif boo xam ni gaaw lool ci faj aajo ak ubbi doomu aadama ci wàllu wërsëg ci alali dunyaa yi alali moo tax boo xoolee ci tarjumaan ji liñ ci tënk ñooy bismillahi rahmaani rahim faidatu shaqwa ismullahi latif sekkara la boo xam ne ci ismullahi bi di latif bi ñu lay jox sekkar ismullahi latif la fi jalbil ashaaq wa amwaali dunya wa man irada an yarfaha allahu alfaqir alayka sarihan ma aqee comme sëñ Maam si la fi lii daal secret la boo xam ne ku bëgg a bijji wala wërsëg yi ak alali alali àdduna yi waaye itam mu bëgg yàlla yëkkati ci moom ak ñàkk bu dee jëfandikoo lii su subhanahu wa taala dana ko teggil ak ñàkk insha allahu taala xam naa dinañ ko leeral bu baax dinañ indaale xaatim bi donte bëri nañu koy jëfandikoo yoo xam ne bu la neexee sax nga bañ ko boole ak xawaatim waaye xaatim bi dañ ko boole ca fexe boo xam ne eh, bu la neexee ya nga jël xaatim def ko ci jaaro wala yaa xam noo ko mën di jëfandikoo daal bu la neexee ya nga boole ci xaatim bi kon istimaal bi moo nekk nii li ñu def mooy tusalla rakaatayni bil fatiha marra alam nasra marra ci rakka bu njëkk bi waaw insha allah taala da ngay jàng fatiha benn yoon alam nasra mooy sur saaxi ba sar wa jeex nga def ko benn yoon ci rakka bu njëkk bi rakkam ñaareel bi mooy wasaani al fatiha wa iza jaa nasrullah eh, nga daal di jàng iza jaa nasrullahi marra eh, eh, bu ne nag iza jaa mooy liñ ci mooy suuratu nasri saar wi yëpp ba mu jeex ndax am na ñu ñoo xam ne daanaka boo waxee kii dañuy jàpp ne aaya nga waaye saar wi yëpp la ñu wax ba mu jeex suuratu nasri iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aytan naas yadxuluuna fii diinillaahi afwaaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kaana tawwaaba saar yu foofu la yem ak sar saar yëpp rek yëpp saar boo ko defee nag nga daal di sëlmal gannaaw boo sëlmalee nag da ngay def fatiha benn yoon daa def astaghfirullah téeméer yoon salaatul fatiha téeméer yoon salaatul fatiha boo ko defee téeméer yoon nag nga doog a ñëw ci tàmbali si kar turu yàlla wi eh, di ismu azam bii nga xam ne mooy latif eh, turu yàlla wi di latif ak ismu azam nga xam ne latif lañ ko tëgge mooy tey tamu tey tamu fawasin tey tamu dañ ci dañ def suñ kem kàttan ci leeral ko daanaka eh, bëri na nu ko nu ko gars yi di jëfandikoo ñu ko xam dëgg bëri nañu nuñ koy jëfandikoo tur tur yéeme yéeme la am dañu am na daanaka ju bëree bëri eh, te su naakam na sum moom nañ gën a yàpp mooy tur yi nga xam ne moo jàpp 903 <coughs> eh, bu dee nag bi tey tamu fawaashin bi moom dafa jàpp 1161 bokkut ak ndax ismullahi latif dafa bari ay e, tur yuñ ci tëgg am na nag bu yox amar xasun xas-xasasun saxasun boo xam naa fan yi dinaa ñëw ci jox ci secret leeral bu ci am solo bu am am solo naan waaye bii nag moom latif e, e, bii tey tam voisin bi wax naa leen mille cent soixante la jàpp mooy mooy tolloog juróom-ñeenti latif moo tax bi ci góor la gën a góor kuy jëfandikoo ndax li tax moo moo tax moo tax sax ñu xawaate mi ñu ngi ci def yi ci gën mooy musallas musallas bi laay indil ci la ndax li tax musallas gën ji mooy musallas mooy juróom moom juróom-ñeenti bunt la waaw musallas juróom-ñeenti bunt la waaw turu yéeme ngi si li ci li ñu wàññi tur yi tur arab yi ñu wàññi tur yi benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar kon gis ngeen ni tur yi tam moom tur yi jëmb am baat yi juróom-ñeenti baat moo ko lu yéeme laa leen wax ngeen teglu maanaam yee daje ci ci mbir nga xam ne day tax ijaab bi gaaw laa leen wax tur wi tey itam mu fawaasin yaa bi yaa yaa daal um ni rek waaw nag tey itam mu fawaasin bii mooy tur boo xoolee pa mooy benn araf bi di ñaari araf pa bi ci topp di ñetteelu araf bi mim bi ci topp di ñeenti araf bi waaw bi xëcc mim bi di juróomi araf bi faa bi di juróom benn bi waaw di juróom ñaari araf bi eh, wala man baa ma ci li ma ko mbay ah taa bu njëkk bi mooy benn araf yaa bi di ñaari araf taa bi ci topp di ñetti araf mim bi nag mooy ñeenti araf waaw bi di juróomi araf faa bi mooy juróom benn araf waaw bi di juróom ñaari araf euh, alif bi xëcc waaw bi di juróom araf sin boobu ñu tom ñetti tomb moo nga xam ne mooy sin bi di juróom ñeenti araf kon na gis ni tuur wi juróom ñeenti araf la am te ci biir juróom ñeenti araf yi aaya bi mu ngi jàpp adat bi mu ngi jàpp juróom-ñeenti latif latif 129 la boo ko darboo ci 9 mooy juróom-ñeent ci juróom-ñeent daf la jox 1161 mooy junni ak euh, junni ak téeméer ak juróom benn di adat bu mooy juróom mooy juróom mooy juróom-ñeenti latif yi te bi nga xam ne nag dafa tolloo juróom-ñeenti latif ba pare araf yi di juróom-ñeenti araf boo ci boolee nag jëfandikoo xawaati musallas bi nga xam ne moom lañ ko nga xam ne adat bi adat bi 1161 moo cee dem bu boobaa xawaatim bi da ngay am xawaatim boo xam ne juróom-ñeenti bunt lay doon ndax masala juróom-ñeenti bunt la looloo tax loolu moom bal la bal loolu moom bal la allahu akbar xam-xam piir laa leen wax de kay di sàkku ngeen defal ma ñaan rek njéggalul yàlla daal eh, njéggalul yàlla ak eh, dund gu barkeel waan ak njariñ àdduna ak àllaaxira daal lay sàkku ci yéen li ma leen baax nga xam ne laa ma leen ci lenn te muy ay solo yu am solo ba pare di ci leeral sama kem kàttan waaw kon daal euh, moom mu ngi noonu tey itam mu fawaasin bi 1161 la mooy juróom-ñeenti la kon lu yéeme bokkut ñu bëree bay nag tur wi dañ gën a euh, miin te su naak maa lay na suñ xaar boobu 903 boobu boobu juróom-ñaari latif la xëy na boobu itam xëy na dinaa ci ñëw euh, ci beneen jotaay waaye tur bi moom nga xam ne mooy tey itam mu fawaasin moom jàpp 1161 moom lu yéeme yéeme la boo ko si kanam da ngay si kër yaa latifu 1161 boo paree nga takk yaa tey itam mu fawaasin ñi sa sonti waaw noonu nañ koy si kare ñaar yëpp ci seen adad latif moom cent vingt-neuf waaye adadu euh, euh, ismul asam bi nga koy si kar muy tolloo juróom-ñeenti latif wax naa ko ba pare nga si kar ismul asam bi ki adadu nafsi muy adadu am mooy poids mystique bi mu am ba pare nga doog a indi aaya bii di allahu latifun bi ibaadihi yarzuqu man yashaa wa laa yushrik aaya bu yéeme am na sekaro jaare bu yéeme bu nekk ci aaya boobu xam naa daan ko mos a indil wala sax xëy xam nañ ko waaw kon itam nga sikkar ko moom cent vingt neuf aay bi aay bi rek nga ci sikkar cent vingt neuf di cent vingt neuf ci di di adadu latif mbokk yi lii képp ku ko jëf am na ci ñoom sax bu leen neexee nañ jëfandikoo xawaatim bi def lii rek dina la génn ci ak ñàkk dana boo ci aaj joo ci ñaan suñu mën na ko faj te nu mu gën a gaawee te dina la ubbi ubbi xëccal na mbooleem wërsëg yi àdduna yi incha allahu taala léegi nag xawaatim ma leen doon wax moom nag du ci force waaye koo ci boolaale tax mu gën a doole xam ne boo ngeen ko ci booree balla moom da daal di am na ngeen bëgg ci saa sa bu yàlla am na koy def nag di ko def ci jaara di liggéey tur bi ko defit yàlla mën na ci def barke euh, kii bi nag xawaatim bi nag musallas la boo xam ni musallas mooy moo am juróom ñeenti mu di adab bi ci dem boo ko wàccee 1161 la kon daal mbokk yi tey lii la di ñan ni képp koo xam ni gan nga ci jotaay bi abonné ko euh, bu dee xam-xam yi ñuy wax yitteel la nga mën a abonné lépp lu ñu def am ci yéena nga bokk ci ñi nga xam ne danañ ci mën a jariñu te it gannaaw bu ngeen ci jariñoo itam ñu ngi sàkku seen ñaan ñëpp mboolem ñi nga xam ne daal ñu ngi topp ñu ngi sàkku ci ñoom ak ñaan waaw soxla nañ seen ñaan bu baax di wax ni nag wax dëgg yàlla xam naa ci sama bopp ni xawma lépp te it bu xam-xam daal donte léeg-léegi nit am ci yow yaakaar yaakaar ci yow yenn ci tax ñoom ci man ma am lool waaye xam di mooy may dimbali ma yokk sama gëstu rek ala kulli hal yéen ñi may topp xam naa ne ñu bari ci yéen ma ëpp xam-xam kon daal xam naa loolu bu wér na ngeen ko bàyyi xel ma ngi jégalu bu baax na ci kàddu yi nga xam ne ñu ngi ko yëkkati te xëy na nit toppuñu ba mu àgg te lam yéene woon ci jariñoo lañ ci bëggoon fekk ko ca kooku ñu ngi koy jégalu bu baax ala kulli hal daal ñu ngi leen balu baalu xàq te leen baal ndax nit moom boo seqi moom rek àq dajay daal di yomb kon ñu leen jégalu di leen xam ne nag ñun ci suñu jëm bopp xam nañ ni ñu gàtt xam-xam lañ waaw xam nañ suñu bopp ku ne xam nga sa bopp xanaa ko yàlla dañoo natoo ñuy wax ak itam bëgg lu néew na ñu mën a jariñ nit ngir xam li nekk ci jariñ doomu aadama rawat na seen bokkum jullit kon daal ala kulli haalin ngeen jëf wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu